mool yaa ngi jiital takk der yi di leen xaañi xeer ay biteel di leen xaañi xer di leen xaañi biteel la e-, takk der yeeg mool yi mool yaa ngi jiital takk der yi mel ni ki jiital ay xar di leen xaañi xeer takk der yaa ngi daw xoolal takk der